bu ko defee ñi nga xam ne nag yoon may na leen ñu dog koor bokk na ca mag moo xam ne dafa jeex dem de mënatu woor kooku koor wàcc na ko ndax koor ku ko man la ko yàlla teg am na koo xam ne ay atam mayatu ko muy woor kooku woor wàcc na ko kooku sopp nañ ci moom bis bu xëyee mu joxe six cent vingt cinq grammes ci ceeb bu ko neexee bu weeru teru rek mu boole ko joxe ko bu ko neexee bis bu xëyee joxe benn. bu ko neexee néeg ba weer yu jeex ba ñu weeri feeñ ne mu xam ne fan weeri fan la wala ñaar fukk juróom-ñeent la mu totaale ko joxe ko mën na koo séddale mën na koo jox kenn nit waaye bis set mu joxe mudd loolu mooy ki nga xam ne dafa dem ba mënatuta woor ngir ak mage naka noonu ki feebar docteur yi xamal ko ni ko mën a woor te feebar bi it du luy wér ne bu dee feebar boo xam ne yaakaar nañ mu wér day faju su wéree fay waaye koo xam ne feebar la joo xam ne jàpp nañ day dëkk ak moom jàppuñu dana wér te amul benn jamono de mooy seddu jamono ju mën a fay ju mën a woor kooku woor wàcc ne ko mu itam sopp nañ bu xëyee mu joxe am mudd muy 625 grammes ci yàpp jigéen ji nga xam dafa toll ab diggante te bu wooree doom ji loru kooku daa war a dog bu fekkee doom ji du loro waaye dana sonn lool dagan na mu dog su ko defee moom bu weer wi jeexee bu yàlla mayee jàmm ba mu set mu fay bu fay moom dara waru ko fay rek ko war day xool weer ñaata bis la mu fayal toll noonu jigéen ji nampal nga xam ne moom itam bu wooree doom ji du am lu nàmp te mën a gut a lekk kooku it mën na sañ naa dog waaye moom bu dogee ba doom ji dëgër ba muy fay bis bu set da koy boole waale am mudd mooy 625 grammes ceeb mooy liibar ak xaaju genn wàll liibar bis yi bis yi mu war a fa yépp da koy boole loolu di ko joxe su ko defee nag képp koo xam ne dangaa dog sa koor te tey ko ci dul ngant yi ñuy wax yow nekkoo jigéeni wérut nekkoo koy nàmpal nekku ku feebar nekk ko mag mu jeex waaye daal ko sàggan rek la dog kooram te tay ko lekk mbaa mu naan naan koo xam ne ci gémmiñam la ko jaare mbaa mu jaxasoog soxnaam te moo ko tey amut benn lay kooku kooram yàqu na fay bis ba war na ko kafaara war na ko te mooy mu woor ñaari weer yu mu toftale yoo xam ne bu ci dogoon benn bis lépp yàqu wala mu leel juróom benn fukki miskin ku ne mu jox la mudd boobu ñu wax loolu mooy daan yi ñuy teg te tey ko te amuloo ngànt te amu wenn layit bu xel nangu loolu jar na bàyyi xel kon weer wu ñu sàggane bi ci deseet ñi am ngànt ba wóoruñ bëgg nañ ñu suturaal ak wormaal weer wi bu ñuy xewul buñ toog kanam nit ñi deen wan ne man wóoruma dama am ngànt waaye làqutul naka jëkk nit ñu baax ñi soxna yi am ngànt doo ko mën a xam lee léeg daawu ko xam ci kër yi ndax ku ci jëfandiku da ngay feex ba kenn du la gis ndax wormaal weer wi ak su suturaal sa bopp ak wormaal boobu ak nit ñi nga dëkkal loolu it lu ma ta bàyyi xel la waaye bu lay rek man am naa ngànt kon mën na maa lekk ci kanam ñëpp man maa def lépp déedéet yooyu yëpp rek nañ ko bàyyi xel. boo xamee nag jigéen woor na ba bëccëg jot baax feeñu ko koor ga yàqu na moom ca sa mën naa dagg koor ga lekk ndax koor ga baaxatul sëntuñ ko it mu ab mu àggale bi si mu jàpp saa bu setee te fajar jotagut mën naa woor donte sangagut na yéene moo tax dañuy bëgg jigéen ñoo ñooñu gisuñ baax. bala ñoo tëdd nañ xool seen bopp bu ñu gisee ne set nañ ñu sangu julli timis ak gee bu ñu yeewoo bu dee koor la bëgg nañ muy balaa fajar balaa jàpp jot mu xool boppam bu setee mu man a yéene koor bu fi sangu xajee mu sangu bu fi sa xajut baax na waaye mu yéene koor loolu it bokk na ci li nga xam ne jar na bàyyi xel baax a baax waaye daal ku gis baax ci bëccëgu Ramadan wala meret jigéen ji am doom ñooñu feek deret doju setut bañ ah euh, woor waru leen te bu ñu wooree koor du baax waaye rek dañ koy fay ñoom dañuy fay dañuy bu loolu jeexee dañuy fay koor gi bis yooyu nga xam ne dañ ko am ngànt liñ gën a taamu nag mooy bu weeru jeexee rek bu ko mënee teel a fay moo mën nañ koo fay sax nag ci bisi koor yi ngàtt ngay ci des juróom-ñeenti fan yi ñuy woor ci tabaski wala ñetti fan itam xare wala ashura bis yooyu nga xam daal bis yu ñu taamu woor la nit ki mën na ca yéene fay Ramadan. yéene waale ci naafile gi du see dana ko am kon loolu it bokk na ci yi nga xam ne eh, suñ mbokki jigéen ñi baax nañu bàyyi ko xel baax di seet seen bopp ci ramadaan waaye seeni kilifa it di leen nemme ñi ci amee bor ñu ñu ñuy fexe ba ñu di ko gaaw fay loolu aw yiw la waaw liñ gën a taamu mooy nit ki bu àndeek soxnaam mu teel a yow sangu balaa jàpp waaye bu ko defutit nag xëyee janaaba du yàqu koor nit ki mën naa xëy yore janaaba ndax la ca kii rek mooy dee na day yéex a julli kon bu amoon ngànt wala mu tëdd biddanti loolu la ko war a waral dëgg-dëgg biddanti du tee koor ga baax na moom ndax yéene woon na ci guddi gi woor yore gi yore janaaba du tee koor gi wér kon na fekki bu fekkee yéene woon na waaye li gënoon nag mooy mu sangu ci guddi gi njëkk fajar di jot loolu mooy li gën waaye bu ko defuti nag du yàq dara ci koor gi naka noonu ku woor ba digg bëccëg muy nelaw gént jaxasoo man ñuy génn ci moom bu yewoo na sangu ji fóot ay yéreem ay koor ga yàquwut waaye bu doon fo ci ay cëram nag ba man yu génn moom koor ga yàqu na te kafaara war na ko day fay kafaara waaye ki nga xam nag da doon nelaw gént loolu yoonam nekku ci moom teg ko boppam loolu du yàqu koor moom nit kii bu xamoon ni bëccëgu ramadaan ci bëccëg bi waaye li mu xam yàggut lool waaye bi fajar jot fekk ne mu ànd ak sagoom koor ga baax na waaye fu koo xam ne jamonoy fajar nga xam ne ci lañ war a jàpp ku mu fekk ngay xam bis boobu mënatoo ko war koor ki mu war mooy mukallaf mukallaf koo xam ne mag la majeur na ba pare ànd akum xelam te amul ngànt amul ngànt mooy leen feebarut tukkiwul ku tukki tukki bu sori sañ naa dog bu dikkee fay ku feebar sañ naa dog wala léeg sax dog war ko bu dee feebar boo xam ne boo wooree mën naa faat mbaa mu ñàkk ab cëram faratale ci moom mu woor mu mu mu dog euh, gone nag goo xam ne baaleexagut dañuy wax ne woor waru ko deesu ko ci force itam maanaam bokkut ak julli mi nga xam ne dañoo bëgg bu amee juróom-ñaari nga digal ko bu amee fukki nga di ko duma sax ngir mu julli ndax bëgg mu tàmm ko dañuy wax ne koor mu ne su ko tàmm tey it nag gone guy màgg mën naa bañ a gën ci moom waaye nag suñ bëggee woor kenn du leen waaye bokkut yi nga xam ne dañuy bëgg a forcer di leen woor la moom ndax moom waragu ko waaye daal koo xam ne baaleex na mag la ànd ak sagom nga xam ne am xelamang fa te mi ngi ci dëkk bi mu dëkk tukkiwut wéra diwut war war na ko boo mun ngànt yi dal comme jigéen nekkul jigéen ju gis baax wala mu gis meret war war na ko loolu daal laa ne woon maa ngi koy eh, eh, fàttali sama bopp di ko fàttali mbokk yi di sant mbooleem eh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp nag ñu ngi siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di baal ñëpp àq ginnaaw bu ñu leen baloo àq di wax ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu